aleykum rahmatullah yéen waa som ñu ngi leen di nuyu rafetlu nañu lool lool lool mbooloo mi waaye li gën a seddal suñu xool mooy mbooloo xale yi ndax xale yi mooy ëllëgu dëkk kon tey Adja Marème soo ñëwee woo xale yi di leen teral fi nga teg sa tànk foofu la ndax ëllëg ñii ñoo war a yore dëkk bi waa ji nee na dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel peuple tu xale yii nga xamante ne ñoo nekk fii tey dama bëgg ngeen di góorgóorlu seen classe soo leen demee ngeen di jàng soo leen demee ngeen di déglu seeni waajur soo leen demee ngeen di bàyyi li nga xam ne dañ leen di koy tere pour que demain ngeen nekk ay médecin demain ngeen nekk ay ingénieur comme monsieur le ministre mi fi jógee domaine loolu la ñu dama ne som nag su ma fi ñëwee damay kontaan parce que pôle boo xamante ne ay jàmbaar rek a fi nekk yàlla def waa som nag booloo nekk benn ndax ba ma ñëwee xàmmewuñu AFP xàmmewuñu APR ñëpp booloo nekk benn àndandoo di liggéey pour que président Macky sàll dem ca kanam loolu moo tax ma kontaan ci waa Somm ba élection yi weesu élection référendum bi amee ba tey jaaruma fi woon ba fekk leen fi yéen ñëpp njëkk naa fi jaar mais dugguma woon ba ñë ñëpp fekk leen fi tey maa ngi leen fi fekk yéen ñëpp di leen sargal di leen wax ne lii ngeen def ndam lu rëy la ndax fii som kenn mësu ko gagné Ibrahima Jacques gay pour la première fois te yàlla def na nag ay jigéen yu takku am pas-pas ànd ak seeni càmmiñ ñoo dugg ci kër yi waxtaan wax leen ba ndam loolu am kon looloo tax su ma ñëwaatee lu mu gàtt-gàtt dinaa leen sargal wax leen ne ñu ngi leen di jàppale te président Macky sàll dégg yëg na ko dégg na ko te xam na ne ndam lu rëy la waaye nag li ma leen doon wax bërki démb il ne foo jamais dormir sur ses lauriers maanaam doo def dara ba pare tëdd nelaw soo nee yaccaaral rek gaa ñi jaar sa kaw nii ngeen continuer animation di jaar ci kër yi di waxtaan ak parents yi ndax ku jafar ku defar xale ay waajuram ànd ak yow kon lii ngeen def moom mooy teg bi nga tànk yi ngeen xamante ne soo leen ko continuer incha allah ndam bi ngeen bëgg ci som di ngeen ko continuer am ñun de tout de tout cœur ñi ngi ànd ak yéen di leen jàppale incha allah ñu dem ba ca kanam maa leen sant di leen gërëm wasalaam.